alaaj <laughs> di nga ma rey sëñ Abdou Karim Mbacke borom maxaarimal axlaa yàlla na fi yàgg te wér. macha allah amiin waaw waaw yow day xaalis doonul sa yàlla. mais démb démb waa ji loolu lox ci baas bi alaaj dama ma bay bëgg a dee jaaji taal kenn <laughs> nee am na ñoo xam ne xaalis mooy seen yàlla di leen conditionné. da ngay gis ku nekk ci kurus gi Souleymane di wirde mhm. léegi-léegi nga wax ak moom na pour wan ne le ngi ci kurus gi waaye booy bëgg a dem mu ne leen niib téye mhm. parce que danaan Souleymane mi bu demee rek maar day tànn daan ko téye <laughs> yaa ngi ci turu yàlla ba waaye yaa ngi ci Souleymane ak li ci poos bi balaa mu laa rëcc <laughs> un million bi dana ma ca ñamal Souleymane te mu ne la waa booy sa waay gaawal boog man damay dem nga ne ko un un <laughs> xaaral xaaral xaaral bu Souleymane dem dugg soo dafa nga ne eh, eh, eh, xaaral xaalis bala déggoo ma de ajee ko wax sëñ Abdou Karim yal na yàlla dëgëral taxawaayam yal na yàlla guddal fanam yal na ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla ah sama xarit ba nee na ku ma bëgg a dëddaleeg sëñ Abdou Karim alaaji yàlla na faatu <laughs> waaw ma ne ku dee doom ne waaw man maa ko wax man ma ne ko ma it maa ko wax moo yey di moo di ma joxe ma joxe kii paasu màggal bi wala ma dem premier te si ñëwaat tey Souleymane tey Souleymane day ànd ak ñun tës tey. voilà très bien Souleymane. tas bi tey ay mbokki Mansour Diop mi ñu toog la dal di ay éleveur et eh. waaw parce que bergerie. waaw Touba Ladoum. ma nga nekk fële nee na xam na la sax yow. Eh, ma xam Cheikh Ndiagne ma xam Touba Ladoum. fukki Ladoum ak juróomam lañ sàcc valeur cinquante millions. déglu ma rek ma daaneel alaaj xamoon naan di nga tiit tey. xaritam bi mu dendal ñu sàcc ci moom fanweer ak ñaari laadum. Eh. keneen kam dendal ñu sàcc ci moom fukki xar ak ñett ci benn semaine te ña ko def. grand cheikh koppar gi boo ko xaymaa alaaji toll na ci quatre-vingt-dix millions. jege na cent millions. loolu kay xayma minimum sax la ñuy def mat na cent millions kay. parce que nee na moom mboote mi joruñu. waaw loolu xayma xayma minimum la ñuy def rek. comme film fukki waxambaane ak ñaar ñoo yor seen i ngànnaay. yor seen oto indi projecteur teg waaw voilà dañuy ñiit nii pour bu leen nit ñi xoolee bu ñu leen gis ah, ah. ray pitbull ya xat yooyu di ray mm-hmm. tiire leen pour nit ku génn ñu tiire la la ilaha illallah ana borom xar yi si meer. salaamaaleykum maa ngi tudd Cheikh Diagne euh, bergerie Touba Ladoum. Euh, dañoo sàcc samay euh, fukki xar ak juróom. valeur lu ëpp cinquante millions. maa ngi fekk ñaari ci samay xarit. kenn ki fi mu nekk nii fabal nañ ko fanweer ak ñaar. trente deux xaru Ladoum. que ci dess fabal nañ ko fukki xar ak ñet même guddi gi leen sàcc xar yooyu yëpp wala. déedéet loolu lépp c' à une semaine d'intervalle. lu ci nek lu ci nek c'est à une semaine d'intervalle. manam dañuy sàcc semaine bi ñu sàcc semaine bi ñu sàcc. ñu sàcc effectivement té li ci gëna garaw déposé nañu plainte gendarmerie déposé nañu plainte ci procureur bi waaye fukki ponkal ak ñaar yoré seen fétal yoré yore auto ak seen outillage lépp. loolu dafa indi problème de sécurité publique. mais yow say xar yow xam nga ñee fekke woo seen sàcc mais yow sa sàcc yow xar déjà foo leen di yare sa kër wala. sama ci sama tool la sama bergerie nekk. fan la nekk tool bi. mi ngi ñàkk rob. mi ngi ñàkk rob. waaw yore naa fa ñaari gardien waaye dëggam ñoom dañoo ñëw ak seen i fetal te ñun suñuy gardien amuñu fetal parce que amuñu permis détention d'arme kon nag fi mu nekk ni duñu mën a jàkkaarloog ñoom ni mu waree. léegi àtte nettali nañ la mbir mi nu mu demee seen bi. effectivement nettali nañ la lépp. parce que dañoo ñëw euh, taxaw à deux heures du matin taxaw ci tali bi tiré deux coups de sommation boobu ñu ngi seet dëggam waa tool bi am nañu fetal am déet. boobu ñaata la ñu woon ñoom. boobu fukki nit ak ñaar.

léegi gardien ñoom dañoo daw sauvé seen bakkan. dañoo daw sauvé seen bakkan ñii daw nañu dem euh, brigade gendarmerie bu ñàgg. Euh, gendarme yi jaar nañu ci gannaaw mais mën nañu leen a intercepter parce que yoon yi dafa bëri. voilà léegi ñu dugg ci biir bergerie bi jëla yeewee xar yi nànk laa yi kenn takku leen ci ku xar yi ci seen box lañ nekk dañoo ñëw li ci gën garaaw c'est que dañoo segg dañoo tànn xar yi ñuy yóbbu ak yi dul yóbbu. laadum yi rek lañ jël. non lépp ay laadum la. ah ok laadum bi dafa ci am ay. Euh, race ay bët exceptionnelle. ay race yu gën a baaxante. voilà donc loolu. kon ñii yarkatu xar lañ. ñii non seulement yaru yarkatu xar lañu wala bokk yarkatu xar moo leen yebal. waaye man ah, même bu leen yebalee sax ñoom buntu géemu ñu xàmmee raas yi. waaw loolu dëgg il faut am ku ne ci ñoom ku xam xar lool. loolu dëgg la waaye man li ma ci gën a yitteel. Mhm. mooy fukki nit ak ñaar yi nga xam ne ne ils sont armés outillés et véhiculés. nga xam ni problème mu sécurité publique la ñu la ñu indi man loolu laa bëgg fi mu nekk nii nit yi xam ko autorité yi aussi xam ko. yow jëlaluñ la lépp kon. non jëlaluñ ma lépp. yow fàttaluñ ñaata lañ jël ci yow. man ma ñu ngi ma jëlal quinze femelles. quinze femelles. waaw jëluñu benn géniteur jëluñu benn jeune mâle ay femelles rek la ñu jël. Ah, ah ñoom xam nañ lu baax ñoom it. waaw waaw waaw. da leen jural yeneen. da leen di jural yeneen léegi nag problème bi daal mooy que fi mu nekk nii. bëgg naa autorité yi yëg ko bëgg naa itam fi mu nekk ni lu mu bon bon ñu defal éleveur yi permis de détention d'arme ñu mën a au moins mm-hmm. saytu seen kaaraange saytu seen alal parce que suñu mm-hmm. bergerie ce sont des entreprises mm-hmm. ko ci nekk fi mu nekk ni am nga ñeent ba juróom ba juróom benn nit yoo xam ne ni fi mu nekk ni yaa ngi leen di fay mbir mi muccul fenn pour l'instant gars yi ñu ngi ci seen enquête. Ah, ok voilà. enquête bi moo aboutir à quelque chose daal leeral. waaye daal man daal problème mu sécurité publique bi daal. Mhm. tax na bëgg naa fi mu nekk nii autorité yëg ko que y' a douze. Mhm. y' a y' a douze euh, malfaiteurs. qui se promènent actuellement dans la nature. yow ñu la sàcc à peu près mën nga njort ne ñoo sàcc sa yeneen xarit yi sa yeneen camarades. mais tout à fait parce que modus operandi bi c' est le même kii dañoo ñëw ci ki nekk Ngeexoox dañoo ñëw neutraliser caméra de surveillance yi. ñaari pitbull la yore. ah neutralisé mel ni ne ci film. waaw neutralisé laa mën a wax. <laughs> nag aay nañ nag. yo pitbull ñaar ba ñu euh, dañ leen a euh, dañ leen a euh, ah xaj. xaj yi dañ leen a dañ leen a empoisonné ñëw nag fi mu nekk nii doog a mën a ñëw song. gardien yi neutraliser leen song bergerie bi. Hmm. voilà te foofu itam.

waaw Alaaji ñun ñun ñuy toog fii di wax sax est-ce que lii moom. maa xam maa xam grand cheikh kii ay xaram fi mu leen di denc fi xari dëkk fi mu wax noonu dafa karole sax fi xari dëkk xar bu nekk am sa néegu bopp saa daf leen di toppatoo ba nga xam ni nekk bu baax bi ñu nekk ndax ni mu fonk élevage def na ak moom benn émission ci temps fiara bi mu def exposition bu rafet bu am solo waaye nag liggéey yombatul le président mi bi muy soog a falu moo ne woon dafay criminaliser vol de bétail. dëgg la déet loolu kay yàggul sax. loolu laa jëkk applaudir. moog sàccum courant bi. waaw vol de bétail dañu koy criminaliser waaye tey la sàcc yi gën a rakkaaju li mu wax noonu ngeen wax noonu la amee gars yi dañuy ñëw pomper caméra de surveillance ba nga xam ne du mën a filmeeti hmm. waaw waaw am na lu weex lu ñu ci naan pousse dootul filmer mu flou. ah ci nag faaw ñu wax ci xam nga nag kooku noonu boo ko nee doo jënd pistolet doo ko jox autorisation rey nga ko te moom bu génnee sàcc yi rey ko. waaw ah, ah te neexul neexul ah, tey moom képp kuy éleveur yi fii laal na la ah. man de ah! man de man de boo bëggee dégg dëgg rek. man de alaaj dama yéemu man man man dama yéemu man. te gis nga alaaj gis nga ñi def élevage grand cheikh mi minimum mu ngi employé lu jige sept personnes di leen fay wéxu dé wallahi parce que ñoom ay immigré lañu won dañu nekkoon à l'étranger bi ñu fortaatee xaalis ñëw dugg ci système li ñuy wax élevage business waaw élevage business jël seen xaalis yu bëri investir ay millions plus de trente millions cher def na ko ci bergerie boobu ci ay defar ay réflexion jekkal defar ay néeg defar ay carreaux et cetera tam hmm? hmm, nak loolu nak encouragé wul doomu Sénégal yi nekk à l'étranger pour ñëw investir Sénégal baxna chaque ah. jour ñuy wax ci affaire le secteur privé national baxna na ah. nga Souleymane bi bu xelam nekkon ci xaar mu nekk ni day décourager la du mun na ci am mbote bu baax ah créneau bu baax naay la bo génnoon jënd benn laadum bu ndaw fi ak at di nga ñëw fii di nga ñëw fii félicité si Ahmed de ah wallaay maa la ko wax waaye waaye doo ko ñemee. man de yéemu naa doo ko ñemee de. déggal kii naan ma xar yooyu moom xanaa kenn du ko lekk.